Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. waaw asalaamaaleykum euh, soxna si ñu euh, nga présenté wu. waaw salaam sëñ bi man la Koura Koura Gaye dëkk fii ci Thiès Kër Mamalaaji waaw. alors soxna euh, doon liggéey. man maa ngi nekkoon maa ngi nekkoon Mali maa ngi nekkoon fi ñuy wax jéemaa ci Mali. maa ngi doon liggéey bépp sénégalais boo xamante ne faatu nga ci Mali maa ngi indi koor bi ba Sénégal ba Kidira. waaw. Hmm. alors lan moo la yóbbu woon Mali. lan moo ma yóbbu woon Mali jàppale ay néew du doole rek moo ma yóbbu woon Mali. Hmm. waaw Tamba laa ñëkk a nekk waaw. Hmm. Tamba nga njëkk nekk di yëngu ci lan. Tamba ba ma fa nekkee maa nekkoon yaay taalibe yi Tamba. bépp boo néew di doole bu nekkoon région de Tamba yaay taalibe yi man mii maa leen yore woon région de Tamba. waaw maa daan yalwaan leen toggal añ chaque jeudi dama daan def resto du cœur. Tambacounda maanaam réseau di cœur boobu ci nga daan am ay moyens yi lay permettre nga togg ay añ ko ci taalib yi ak néew doole yi. déedéet dama daan yalwaan dama daan dem ci bureau yi. Mhm. damay damay dem euh, euh, conseil régional bu Tamba ci vie Kabina Kaba dama daan dem fële ci mm, euh, kii tribunal fépp laa daan dem douane fépp booba Mamadou Diaboula moo nekkoon gouverneur u Tambacounda mhm. sama papa la. Mhm. daan jàppale ci taalibe yi. ñoom ñoo ma daan jox li ma daan togg. ak monsieur Ngor Faye station Ngor fay bu Tambacounda ñoo ma daan jox li ma daan togg resto du Tambacounda di ko jox ay néeru doole yi ak ñi seen xeli yi naqari waaw. alors euh, mu mel ni euh, Tamba euh, Tamba yoon boobu Mali. Mhm. bu ñu gisee am na ñoo xam dañ daan am ay jafe-jafe. ci mhm. ay accident. Mhm. ak tamit ay force sax yoo xamante ne dañ daan am jafe-jafe. seen i mais également ñoo xam ne ay ay jafe-jafe foofu diggante Mali ak Sénégal. dañu denc leen maanaam nekk ci yi. am na rôle bu am solo boo xam ne liggéey nga ko ci ñu bëgg rek nga ñëwaat ci liggéey waa liggéey bi maa ngi ko doon liggéey ngir yàlla ak yenent bi ndax bépp prisonnier boo xamante ne nekk nga sénégalais nekk ci prison Mali dinaa def intervention dem ci procureur dem ci du dugg ak génn dugg ak a génn ba nga génn ma jox la paas nga ñibbi si fii si Sénégal koo xamante ne dafa def accident muy chauffeur routier yi bu ñu defee accident maay indi koor yi ba sama bureau fii ci Kidira maay def la tout man ak sama patron góor a xuma ñu indi la ba ci fii ci Kidira ma soog a wàññeeku ñibbi Mali loolu moom liggéey naa ko lu mat presque léegi fukki at ak nangam maa ngi liggéey loolu ba ci directeur ru samag bu Dakar maa ko indi maa indi koor yi ba Sénégal waaw Mamadou Lamine Teera famille Teera waaw foor yëpp maa leen di indi fii Sénégal. boo amee problème. kon bu fa problème amee rek góor xuma moom ñëpp xam nañu ko ci wàllu euh, transport. waaw également ci li nga xamante ne rek moom mooy. Euh, Union des routiers mhm. mhm. euh, ci nga nekk nga nekk délégué. waaw yore foofu nag ci li nga xamante ne rek mooy wàllu dem ba dikk bi. nga nekk tamit chauffeur yi ak yi ni mel. góor xuma tey liggéey bi nga xam ne yéen a ko doon liggéey foofu est-ce que moom xam na dayo bu mu am. waaw xam na ko ndax góor xuma taxawu na ma. bi ma feebaree bi ma wàññeekoo koor bi nga xamante ni moom laa indi ba am problème bii waa Tiwaawan lañ waa jigéen bu Tiwaawan. Euh, damaa xëy suba fajar teel commandant bu brigade bu Mali woo ma ne ma Coura ndax yëg nga accident bi am ma ne ko fan la am mu ne ma mi ngi diggante jéema jiji ni ma ne ko waaw yëg naa ko maa ngi sur terrain bi. bi ma demee ba foofu dama fekk ñoom ñu faatu nekk oto bi war si seen kaw ma dem ci benn village bu nekk foofu ma woo waa village bi waa village bi ñëw dimbali ma ma wut ma wut giri oto bi yëkkati ñu yëkkati oto bi génne koor yi ma jël ambulance bu jeema indi koor yi ba Kidira bi ma ñëwee ba Kidira ci la sama tànk lakk ma woo sama patron góor xuma wax ko mu ne ma bàyyi li ngay def nga ñëw bi ma ñëwee Sénégal nag bi ma ñëwee ci fajar gi lañ ma entré hôpital Saint-Jean-de-Dieu bu Thiès def naa fa presque quatre mois maa ngi maa ngi hôpital waa fa laa nekkoon. hôpital Saint-Jean-de-Dieu nga tëdd. waaw maanaam daal yow bi nga demee jëli koor yooyu daal. waa ci la ndogal bi daal. ci la ma ndogal bi daal. Mhm. ci la ma bi daal waaye góor xuma taxawu na ma nag bu baax. man nag yàgg naa liggéeyal Macky Sall. ndax bu daan génn di dem Nene Fesha. bu daan génn di dem euh, euh, euh, dëkk yooyu yëpp bi ma nekkee région de Tamba dama daan ànd ak moom. fu ministre bi daan dem booba ministre la fu mu daan dem damay ànd ak moom damay dem conseil régional ñoo may jox oto vieux cabinet kaba moo may jox oto mooy pré mooy magu ministre bi tey kaba Sidiki Kaba Sidiki Kaba moo ma daan jox oto def ci gasoil ne ma yaay taalibe yi demal comme dangay ànd ak ministre bi booba Macky Sall ministre la. waaw dama koo bëggoon rek te yàlla tax di ànd ak moom te ba tey nag maa ngi koy bëgg di ko liggéeyal ci àll bi. waaw euh, kuréel bu ñuy wax euh, da nga dem ba am benn statut ci li nga xamante ne mooy diggante Mali ak Sénégal mais Mali moom kenn natable ko ambassadeur yeeg procureur yeeg ñoom ñëpp xam nañu kuy Coura Gaye. waaw loolu am na tey boo woon procureur léegi. ne ko kuragay dana la ko sama dom la sama xarit la parce que bépp bépp ben sénégalais nekatul ci kasso bi djema ndax kuragay lekul nanul ndax dimbali sénégalais yi fi waaw dama ko don def rek ndax yalla ak yenente bi bi nga xamene Macky Sall ñew na si OCI bi fele ci Mali sama patron demone na goro xuma ñun ñëpp demone nañ taxaw waaw bi nga xamee tamit nak mi ngi jaar fi tamit kidira di dem Bakel avant élection yële passé ñun euh, ñu jóge woon Mali man ci laa bokk ñëw ñu accompagner ko ba mu egg ñu soog a wàññeeku ñibbi Mali. waaw. alors euh, Coura ñaata njaboot nga am. man am naa doom bu jigéen am naa benn doom bu jigéen am naa ay seex yu góor. am naa tamit ku ndaw waaw. am naa ñeenti doom. Mhm. waa alors tëdd lu tolloog ñeenti weer ci lalu hôpital day laaj ay dépenses ay frais ci wàllu koppar li ni mel tey boo ko doon xayma ñaata nga ci ñàkk ak say mbokk. waaw man de bi ma tëddee hôpital ak léegi san patron nag ni ma doon fay waaye man de wax dëgg yàlla ñàkk naa lu ma 3 millions et poussière. Saint-Jean-de-Dieu bu Thiès. waaw bi ñu la wax damaa kii ñu amputé sama tànk bi. Mhm. waaw sa patron daal taxawu na la. sama patron taxawu na ma. Mhm. taxawu na ma góor ku ma taxawu ma maa ngi koy gërëm di ko sant. Mhm. taxawu na ma. maa ngi koy gërëm di ko sant moom ak képp ku bokk nekk ci syndicat am. ndax góor bëggul ma xiif bëggul ma mar fu mu toll mi ngi may woo téléphone de xam ci lu ma nekk. te ba tey ñii may wax yow maa ngi liggéey. ba léegi nii may wax yow maa ngi liggéey léegi rek laa am benn chauffeur bu ñu arrêté prison bu jéemaa. man maa ko doon lijjanti léegi ba procureur libéré na ko léegi. bu Mali. bu waaw. donc yow daal yaay seen ambassadrice. maay seen ambassadrice daanaka maa ngi liggéey ambassade ci boppam. Mhm. xam na ma. parce que bi mu demee France temps yee passé am na benn xale bu góor bu jóge woon Côte di euh, euh, bu jóge woon ñëw ba Jéema bi mu ñëwee ba Jéema mu wàcc otoom daal ne seen waa kër man de oto bi ma duggoon Sonev wàcc naa ko. dugg naa beneen oto ñu ne ko lu tax mu leen daam ñu ma topp ñemewu ma mais sama bagage mi yónnee naa ko man loolu yëguma ko ba guddi gi la ma commandant bi woone ma benn benn waay de nee na du ñibbi Sénégal ñëw na ba jeemaa mu wàcc ma daal di dem foofu ci gaaru Sonev bu jeemaa bi ma demee ma laaj ko lan moo tax nanguwoo ñibbi mu ne ma dara daa mel ni daa ñu ma topp ma ne ko foo jóge mu ne ma Côte d'Ivoire ma ne ko jógal ñu dem sama kër mu ne ma déedéet soxna si dama lay bañ a indi problème ma ne ko doo ma indil benn problème parce que commandant gendarmerie bi moo ma woo mu wax ma ko mu ne ma déedéet soxna si ma wax ba sonn mu bañ ma jëndal ko reer ma may ko ñeenti téeméer ne ko loo bëgg a jënd nga jënd ko boo xëyee fee rek mooy sama kër boo laajtee kër sénégalais bi kura dinañ la indi sama kër léegi waa ci guddi gi lañ ko rey ci guddi gi lañ ko pendre rey ko ma kay commandant bi woo ma ne ma waa ji de dañ koo pendre rey nañ ko ma ne ko pendre mu ne ah, ma ne ko maa ngi ñëw léegi commandant bi ma demee ma daal dem ci margo bi xool ko ma ne ko ku ñu pendre day yàq ay yéreem ku ñu pendre dina saw tubayam te kii dara nekkul ci moom kon kii leneen moo ko rey waaye gorge bi nii moo am lu ñuul magam magam bu góor mi ngi liggéeyee ndar Euh, tribunal bu ndar lay liggéeyee lii may wax nii bu ko déggee yaay taalib Koura Gaye te mu nekk jéema fi ñu reye woon rakkam moom mooy wax ak moom nii waaw léegi waa ji bi ma indee koor bi ba Kidira commandant dana ma delloowaatal koor bi ñu autopsie ko ñu jël koor bi delloowaat ko ñu autopsie ko bi ñu ko autopsie lañ soog a indiwaat koor bi Sénégal man damay sama loolu sax sama patron après la koy soog a ndax man affaire routier laa amal affaire waaye dem naa ba loolu mooy sama habitude ci Mali pour ku am problème sénégalais rek dañ may woo. chauffeur bu ñu tëj léegi kaso dañ may woo damay dem ba Nioro di Sahel maa leen di génne. maa ngi génne leen ngir yàlla ak yenent bi. alors Coura euh, da nga fa teewaloon euh, yëpp. waaw est-ce que ambassadeur bu Sénégal ci Mali est-ce que am na loo xam ne rek def na ko ginnaaw bi nga amee ci jafe-jafe yi. ambassadeur dafa may booleeg benn femme bu ñuy wax ah, madame madame euh, Keita bu nekk ambassade bu Mali yenn saay bu ñu amee problème wala ñu yëg ne koor bi maa ngi ko yóbbu Sénégal daf may woo ne ma kura ndax koor bi nii naa Sambata Ndiaye ma ne ko koor bi nii laa ci def nii laa ci def nii laa ci def mu ne ma merci bi nga xamante ne ambassade dafa dem France bi mu ñëwee. ku ñuy wax ture woo ma téléphone daal ne ma ambassade de nee na daa bëgg a wax ak yow téléphone. ma ne ko waxal ambassade ne ko man maa ngi fii ci jéema maa ko fi toogal lépp lu ma mën a def rek ngir yàlla ak yenant bi dinaa ko def waaye nee ko lépp nag Macky sàll rek a tax ma koy def ak sama patron góor a xuma waaw. waaye waxoon na ma sax ne ma dina ma wutal warukaay woo xamante ne dinaa ci mën a dem di ñëw waaye boobu ba tey déggantewu ma moom waaw. très bien tay fu mu toll ni eh, ban appel ngay lancer parce que tay buñu xolé li nga wax yow tay monument nga tay eh, statut bi nga am vraiment statut femme leader nga parce que sa taxaway ci wam diplomatie entre Sénégal ak Mali parce que buñu xolé xoolee dafa waroon xajam yépp ci ay doomu Sénégal ak yenen ak yenen tay ban appel ngay lancer ci dimbal ci askan wi ci sénégalais mais également ci autorité yi na ci Macky Sall Marème Faye Sall ak ñeneen ñeneen man Macky Sall dama ka bëgg ba duma ko wax dara ndax Macky dama ka yag top yag na ka top yaay talibi Tamba yag na top Macky Sall wa man dama ko bëgg nak torop ba tay ni fi ma tok ni tay la ko gëna bëgg wa légui nak ma ngi lancer appel madame Macky Sall ndax acte bi nga xamanteni barki dem démboo ndjay def nako ci feet ji ci Noël ji neex na ma torop maa ngi leen ni maa ngi koy ñaanal yàlla maa ngi koy ñaanal li mu bëgg a am fu mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggal maa ngi ñaan autorité yi ci àdduna bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla képp koo xamante ne mën na maa jàppale mu jàppale ma te yàlla tax.